sama micro allo Kounkandé. moom lu muy wax. bul wax benn mot bu vulgaire nag. yaa ngi tele yaa ngi tele. salaamaaleykum da ngeen def. ñu ngi lay ziar Kounkandé. bilaay waxi dof lay wax. dama ne kooku di wax vulgaire bu jàkkaarloo sama kanam bu ko waxee ma def ko comme jigéen comme ni may def gars yi si tali. yow sa kanam kanamu jigéen la. gaa yan lay def moom moom gaa yan. wax mais bu wax moom vulgaire yaa ngi ci tele. waaw en direct lañ nekk. sa kanam kanamu jigéen la Kounkandé. man man man aw ma lu ma yàq ak yow parce que yow góor jigéen nga amoo fit. aw ma fit. ma def la comme jigéen ci tali. yow da xeesal. maa la ñu xeexuñu nañ taxaw ñaanal équipe bi solution amul suba bi match suba bi ñaata la match suba bi ñaata la. match suba xeexee génn gu ma Dakar de maa ngi Dakar. match suba bi ñaata la. fii de boo fi ñëwee tey. moom lu man maa ngi 2STV ñu beegu ma xam naa ne boo fi ñëwee. waaw déglu ma comprendre. 2STV laa nekk. waaw déglu ma waaw déglu ñu soxla wuñ loolu. waaw waxal na pare nga may ma wax dimbaleen moom tontu yow foo ne Koungheul yaa ngi abal ma abal ma abal ma man maa ngi Dakar ñun ñëwuñu fi pour xeex waay mel ni non même comme bi ñaata la waxal si bi waxal si match suba bi te nga xam maa ngi Dakar waxal si matt suba bi te nga xam ni man maa ngi dakaar mat suba bi moo ñu intéressé moo ñu ñor su dee am nga fit maa ngi dakaar ñi béeguma tey sa dëkk laa ñëw génnal maa ngi 2STV su dee am nga ma fi yaa bu yaatu fekk ma 2STV boo fi indee caaya ñor kese ngay yóbbu maa ngi sa baay tous 2STV laa nekk néew ma mbuur de maa ngi 2STV booy ñëw eh, sa caaya ji nga yor na am juróom-ñaari ñoor parce que su ma roccee juróom-benn nii nga dese benn ñoor boo mën a yóbbaale sa kër kunkande yow yow yow yow doo ku baax bu la sénégalais yi yow ñàkk jom nga def xeesalkat góor jigéen ana góor di lante ay bëtam liggéey li war a def kunkande yaa tax xeesal desatul desatul marché. <laughs> am ñàkk fayda. yow yow say doom yow doo rus sax. xaw ma naar bu ñuul nga xaw ma naar bu xees ñàkk a jom dooru sax cib muus mu ñuul xaw muus mu xees. moom loolu rek lay wax joxal kii jàkkaarloo. coupeel kii waaye yow tamit sëñ bi. waaye jox ma sama téléphone Karamba. jox naa la rendez-vous maa ngi 2STV dégg nga. Karamba andi. dégg nga. chaque jour mi ngi defee émission ni kenn kenn moom moom. maa ngi 2STV Kunkande xam nga 2STV yaa ma fi njëkk a day mooy. waaw kanam la moo dem buti ba micro bi coupé nañ dootu ko dégg. te moo buti resaas léegi ah, ah, doon ñu eh, dimbali ñëw ci match suba bi. Eh, waay Samba xoolal keneen. kii kan eh, waay Samba kon kon kon nii lay demee soxna Ayda bàyyi après dinañ la jël. léegi jàppale leen ñu wax ñu parce que. fi mu toll ñiy xaar ñëpp. Ah, bu fekkee match suba bi mën nga wax verdict lay doyee du dëgg amul leneen li ngay wax ni amaluñu benn importance seen problème personnel gérez vos problèmes personnels. kay ñëpp la amal problème wax leen li li jariñ askan bi. man ci suba bi ñun mooy suñu problème. non non na ñëpp noppi nag na ñëpp noppi mu wax waaw na ñëpp noppi aja waxal ñu ngi lay dégg. dama ne man ci Sénégal bi incha allah si kattan yàlla dama ne deux mille ans Sénégal dana door deux ans Angleterre si kattan. kana kana yàlla waxul dëgg. kana kanay dugal kana kanay dugal. dama ne defee naa karandaan ñas ay kat léegi yow match bi suba yow mi waroon xaj gën xar gën tax xaroo ko nee nga match suba bi 2-1 la. li mu wax ni bu amee. li mu wax nii. kan dina dugal. Ismaïla Sarr. billaay waxul dëgg ok d'accord waxul dëgg ñaari kii kii la ñu wax. amul dëgg ok bisu merci merci yow merci coupé soxna Aïda Sall day wax verdi. bisu.